salaamaaleykum sama gaay ah dal leen ak jàmm si Yam Li Xaar Tech ah tey dañu ñëw ak si yéen ah naka ngay yokkee say abonné si Instagram ah gars yi dañuy ñëw euh, chaque jour de ma ko laaj ah si compte bi yéen a ma gën a xam bu leen fàtte ngeen abonné ah jàppale ma pour ngeen gën ma jàppale sama seeni YouTube bi yéen a ma gën a xam waaw Instagram nag nekk na sit boo xam si ni euh, euh, application boo xam si ni. boo ci amee yenn abonné yi rek mën nga ci def ay business yu ndaw yaa ma gën a xam léegi nag boo bëggee yokk sa abonné yi am na benn méthode deux méthodes yu eh, ma leen bëgg a présenter tey yoo xam si ni ah c' est yu efficace la quoi méthode yu efficace yoo xam si ni ku ko def di nga si gis njariñ quoi bu njëkk bi mooy par exemple nii comme mooma zapping bii nii ni mu dugalee ni nga xool aimé yi nga laal MF yi nga nga xool euh, comme kii yi nga yi nga abonné xam nga yii day wane ni ñii ni amee ñëpp ñoom ay ay compte actif lan quoi comme par exemple ñi ngi si connecté xam nga lan lan moo tax nga nga war a préféré ñi amee mooy euh, bu dee bu dee des fois booy abonné mën ngaa abonné si compte yoo xam si ni connecté wu tun si ak yooyu noonu mais par exemple vidéo bi nga xam ni tey lan ko dugal boo xoolee abone yi yëpp ñoom seen compte euh, compte actif la quoi léegi euh, dangay ñëw wàcc abone yi yëpp da wàcc ba suuf ngay yëg mooy gën a gaaw nga def nii abone abone yi yëpp gisoo dèjà am na am na yenn abone yu yokk yeneen ngi xool nga nga abonné yi yëpp kayak apa nih nggak apa nih iya gitu iya nama garakam apa ne apa ne ba wa nga wacc ba suuf du la wan nak aimé yépp han mais da nga wacc ba suuf nga nga abonné yépp yi fi nekk ni yépp nga abonné ci maam seen boo abonné woon 100 man na ni 30 yépp dinañ def abonnement de retour ñëpp dinañ abonné waat sa compte beneen bi ci des mooy da ngay xool mooy compte yi nga xam ni ay ay ay quinze mille abonnés lan am euh, jëm suuf quoi quinze mille abonnés jàpp dix mille abonnés dix mille abonnés jàpp quinze mille abonnés seen yooyu ngay xool par exemple boo ci amee benn compte boo xam si ni ay dix mille abonnés la am euh, da da ngay dem si compte bi direct exemple xaaral ma xool benn compte bu am dix mille abonnés euh, xaaral ma xool instant yi de mooy loolu.